sallallahu alayhi wa euh, am mbégte mu rëy ci dalal gi nga xamante ne xalif général des Mourides Serigne Mountakha yal na fi yàggate ànd ak wér dalal ñu ko euh, waxtaan ak ñun ñu ndokkeel ko ci bis bu màgg bi ñu jëm di màggal ci weeru safar bi ba ca topp ñu wax ko it mu ñaanal imam Alioune Badara Ndao Euh, ñaanal ko yàlla yokk leer ci moom yàlla suuf oyof ci kawam ndax taxawaay bu am solo bi mu amoon ci biir réew mi ci wàllu yàlla xamal nit ñi yàlla ak wàllu naka lañuy toppee yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu profité aussi si occasion bi euh, jébbal ko ay xasida yu ma bind ci Cheikhul Khadim bi ma ko jébbalee ba noppi euh, ma ma wax ko nekk maa ngi fas yéene incha allahu taala euh, tabbi ci élection présidentielle bii di ñëw en 2024 doon ci candidat loolu wax naa ko pour mu ñaanal ma ci euh, ndax jamono ji jamono ñaan la ma am yaakaar ne les grandes mutations yi war a xew ci réew mi faaw mu am benn alternance bu bees bu fi amaat te bëgg naa ko incarner pour ko soir du de en 2024 euh, février 2024 incha allahu taala Sénégal mun a tàbbiwaat ci ay loxo yu yu bees ñu jubal ci liggéey bi nga xamante ne incha allah dana saafara jàngoro ak mettit yi xew ci ci réew mi euh, moom ñaanal nañu nag euh, rafetlu na aussi nee na pas-pas ak engagement bi ma am ci wetam ndax du ne du ne ni guleet mukk ñëw bi may ñëw ci moom danaa ñëw te xew-xew amul danaa ñëw su xew-xew amee waaye dinaa ko nemmeeku yit saa yu ma amee occasion di jot njaboot ji ko wër loole moo nekkoon sama tànk fii ci ci Touba euh, di di sant yàlla bu baax nag bi mu ñu tàbbalee ci lii ci mbégte mu mu kawe bi sant nañu bu baax a baax a baax li moo nekk